Euh, li ma ci bëggoon wax rek mooy ñoom wax nañu bëree bëri vraiment répétition la mais ñun ñu bëgg rek ñun dañu bëgg un apaisement social social bi mooy dimbali ñu ñu nekk ci suñu stabilité boobu ndax bari na ñoo te ñu ngi topp ci projet bi depuis deux mille deux mille neuf cent kon léegi xale yi màgg nañu te bëgguñu aussi dem ci beneen camp boo xam ne daf ñuy indi ay problèmes yu dul jeex te xale yi ci boppam xam nañu ñuy teg seen tànk ndax ni ko monsieur Mor Fall waxee sànq ni ko monsieur Mor Fall waxee euh, mooy terrain bi ci boppam yàgg na te ay intellectuel rek ñoo dëkk fii kenn doon fi bernaat ñëpp a jàng suñu demee ba seeni doom jël relève bi di taxaw fii di ñu woo ñu ñëw conférence de presse c'est parce que léegi xale yi màgg na te xale yi ñooy avenir du demain te xale yi ñoo fiy def seen lépp même du géeje du amaka 156 AKD mais géeje way ci boppam bare na ñu ko xamante ne fii la ñuy defee seen seen ay entraînement muy ay jàmbaar muy ay Cheikh Wade kii jamono Cheikh Wade et cetera bari na ay équipe yoo xam ne fii lañ koy defee te lépp lu wax nañ ko tabaski fii lañ koy jullee ndox mi surtout nga xamante ne ñu ngi defal pavage amuñu assainissement amuñu dara assainissement bi c'est très important te amuñu ko ñu war a ñëw nag jëlaat suñu terrain yi dugal ñu ci beneen kàrkaan boo xam ne daf ñu amati fu noyyee su boobaa chaque année ren jii rek ci ñuy assainir man sama kër ci suuf dañoo dafa tooy xepp yàq ordinateur yàq kay yeeg yëpp ak ak valise ak armoire yi ren jii laa la wax ñu paamee xali ngeen xam ni kon sóoraale wuñu ñoom loolu lu ñuy sóoraale mooy ñoom def na leen lu leen neex rek li ñu bëgg nag mooy terrain bi xam ne wax nañ ko ku nekk wax na ko dañoo bëgg tey jii ñu jox beneen nañ leen jox beneen terrain te bàyyi jox suñu terrain état bi mën na ko filao yaa ngi nii amoo ah, ak commune de Ndiarème bi dama laay am na ci 6 hectares fa dee affecté nañ leen affecté foofu ñu bàyyi ñox suñu terrain. wax bu dul loolu ñu leen feneen parce que état bi moom nekk na ko def mais ñu ñuy seetaan depuis loolu chaque ñu nekk ci ay tension doo demee jàngi wala nga liggéey sa xel bu dal war nañ cee dimbali wax dëgg yàlla état nañu ci dimbali les autorités nañu ci dimbali maire aussi ñu ngi koy interpeller lu mu ci mën a dox yeneen ñi ak comité bi ci boppam dañuy ci dimbali parce que dañu bëgg ay apaisement social ñun wax ay yaay lañu ay jaboot lañu liggéey xëy ñu bàyyi loolu suñu kër yi di dem ñu ñu interpellé autopolice ñëw na fee jàpp na fii parce am na moment boo xam ni Mor Ndiaye Fataay ñoo na fi indi fi ay ay ay ay nervi ak Youssou Ndiaye ba ñu jam fi ay ay élément ay xale yoo xam ne si waa kër yoon tey loolu d'accord ko agression bi nañu dañu bëgg mu tax tax parents yi seen bopp ñoo apaiser xale yi mooy kon doon na gën a ñaaw kon comme am nañu kilifa ñun ñu ngi topp suñu gannaaw kilifa ak suñu autorité pour vraiment ñu jàppale ñu jot suñu terrain ñee ñu fi nga xam ne jëm wote seen doom jox leen merci